maa ngi tudd Ndeye Farma Ndao maay présidente réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. tey dañoo ñëw fii yëmbal pour célébrer li ñuy woowee 16 jours d'activisme ñi nga xam ne yàgg nañ ko di féete année bii nag dañoo décider délocaliser ko andi ko fii si yëmbal pour féete ko ak yëmbal parce que yaakaar nañ ne journée la boo xam ne am na importance yoo xam ne ñëpp a ko war a mun a à leur niveau moo feetee ko fii ak waa population de Lëmbël ak les personnes à les personnes handicapées jàpp nañ ne participer na si bu bu baax na violence mun na nekk morale comme mun na nekk physique et autres donc munoo xam fu violence bi di di jóge waaw te jigéen ñi même si am na ay traité ak ay loi yu état teg ba tey gis nañ ne jigéen ñi ñu ngi dund lu violence lu ci mel ni mutilation génitale féminine maanaam jigéen yi ñuy xarafal ak ay viol entre autres ak xale yi ñuy teel a maye donc te gis nañ ne yëmbal zone bu touché la donc motax tax ñu ñëw fi pour ki ak ñom ñaax askan bi diisoo ak ñom pour un changement de comportement. waaw comme ñun réseau la suñu suñu premier taxaway moy fexe euh, ba loolu ñu bañ mu bañ see bañ a yegg ndax moo tax ñu naan dañuy prévenir waaw ñun du ñu bàyyi ba dara xew ñu ñëw bëgg a taxaw dañuy prévenir dañuy def ay ay activité de dialogue entre génération du diisoo ak askan bi pour ñu bañ a yegg si loolu suñ demee nag ba loolu am ñun tamit duñ duñu duñu duñu toog dañuy xool nan lañ mën a defee ba décanter situation instant bi lu ci mel ni xale yi jigéen yi ñuy teel maye ñun suñu réseau mu ngi liggéey pour porter plaidoyer pour nous dire parce que loolu tamit jàpp nañ violence la bu xale jigéen ñi di dund ñun suñu à notre niveau nous ngi def plaidoyer pour nous revoir au moins l'âge légal du mariage de la fille ñu jéem ko yéegal ba méngale ko mu tolloog bu à 18 ans. C'est Maudo Kanyibeng, président de l'association Mouvement des Jeunes de l'Espoir, en même temps président du commission violence basée sur le genre au sein du comité exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. activité bi xam nga dafa bokk su suñuy activité phare li nga xamante ni tey jii moom la réseau bi di promener parce que man mi Nous sommes une organisation le mouvement des jeunes de l'espoir membre du le réseau des jeunes Qui dit le réseau des jeunes nous sommes lu nga domaine d'intervention prioritaire Nous sommes ba les MGF les mutilations génitales féminines mais ak les ak donc nous sommes membre par rapport également à cette euh, organisation Nous nekk 31 organisations ici au niveau du Sénégal donc ci nous nous un programme en partenariat avec waa Speak Africa dans le cadre du projet Voix Essentielle donc nous ñu une deuxième phase avec des ateliers de formation surtout à des personnes à mobilité réduite donc en 2022 donc avons eu la deuxième phase bi donc dans le cadre des ces jours d'activisme également nous initié une euh, campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles au sein du département de Kermassar. les personnes à mobilité réduite de dans sont les couches les plus vulnérables donc qui euh, dit tamit ak ak yelleefu jigen ni donc foog laal ci euh, parce que c'est quelque chose li nga sensible. et que les personnes à mobilité réduite dafa doon ñi nga xamante ne ay mën naa ne sax ñu baal ma ci terme ay way laago lañu mais tamit également dañu am àq ak yelleef si société bi comme ñun nuñ ko amee am suñuy cër mu mat tamit également loolu moo taxoon ñu gën a initier gën ko ak santé wu si ñoon fexe xool naka lañ leen di mën a jàppale surtout yi nga xamante ni mooy problématique yaa ngi fi lu ci mel ni seen carte égalité et sens yaa ngi fi bourse familiale li nga xamante ni aussi accès au financement surtout moo ngi fi parce que tey par exemple dañuy dem ci au niveau des banques pour mën a demander des financements mais tey bu ñu leen xoolee ak seen melokaan wala dara loolu dina tax ni duñ leen mën a garantir wala duñ leen mën a lebal yenn financement yi tey réseau bi si loolu la jóg ngir mën a xeex ngir mën a def plaidoyer boobu yi nga xamante ni war na mën a yegg si autorités yi ñu xool naka la ñuy mën a def pour mën a a ñaax ñu gën walu xoxatal jigen wala fitnal jigen dafa don question bi nga xamanteni waruñu ko bayel jigen ni rek mais ñun goor ñi tamit aussi war nañ ci am ben rôle de responsabilité bo xamanteni war nañ leen mëna tagat di ñaax ak ñom di waxtaan ak ñom mais également surtout euh, les écoles que ce soit les parents d'élèves wala que ce soit aussi les professeurs parce que violence yi nekatul rek ci violence bi nga xamanteni dañ koy jappé ci société bi mais dafa yegg ba ci biir kër yi yegg ci école yi kon donc du l'idée que moy ñu convier won couches yëpp ñu convier woon tamit aussi la population di département de Kër Massar moo tax parents d'élèves yi ñëw moo tax élèves yi également idem ñëw moo tax tamit aussi borom kër yi ñëw tamit également pour si ndaje boobu